non maa ngi gis quoi ñaan Lamine Golo dañ ko écarté pour ñu xamal Lamine Golo mooy mooy mooy entraîneur u école du Balla mooy toog ci géew bi noonu si kii bi si siège bi bu Balla di bëre quoi ren dañ ko écarté ci combat bi quoi Balla Gaye da ko écarté Balla Gaye xam nga Balla Gaye yaa ngi war bañ a forom bañ a fontoo quoi yow Balla Gaye quoi yow boo mere mel sa bopp yaa entraîné wul yaa indi forme yu bon yu daan la exemple yow tey ji nga indi sooy noonu Père Birahim Ndiaye Moustapha Guèye Manga 2 ñu toog si siis boobu ak sa forme bi doo daan kenn Lamine Golo defaloo dara mais waaye Xaadim Ndiaye booy seetaan yooyu nekk naan ay ah booy bëre nooy jëlee ay golo di leen teg xam nga yow yow Xaadim Ndiaye lu mu ne wax wax yu réewante yooyu noonu ah Lamine Golo sur noonu la rek mi nga ne jël ay golo ay Lamine dàngin Lamine Golo defaloo dara jël ko mu ñëw toog sa foofu noonu yow Balla booy mere mere sa bopp yaa fi indi forme yu bon ñu daan la kon Gris Bordeaux forme bu bon ngeen di Gris Bordeaux ñàkk forme moo tax nga daan ko Dianville sa forme contre Boy Niang baaxul forme contre euh, Bombardier baaxul dala jël daan la ñaari yoon ñu ne la ne ay Lamine Golo dama koy écarté écarté sa bopp yow yaa war a ñëw jëmbat sa am xam ñu la topp nga entraîné Balla Gaye ku loolu waxul la dëgg Lamine Golo ak daangi nag Lamine jësita si yam tu la dara Lamine kaay toog nga yëgal sa job seytaane ngeen trop